noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi wa alihi wa ñaan yàlla mu dal ko xeewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku ci aw yoonam àddina tukki mbokk yi tey dañuy waxtaane juróomeelu dénkaan ci fukki dénkaan yiñ tàmbali woon te alxuraan andi ko ci saa ci saarul anaam dénkaan boobu yàlla dañu ciy tere rai bakkan ci lu yoon ci lu ak ci lu dëgg mu wax ne bu leen rey bakkan bi yàlla araamal ko rey ci lu tegewul ci yoon ci dëgg loolu la leen yàlla di dénk ngir ngeen mën a jëfandikoo seeni xel ndénkaan loolu kon yàlla da ciy tere bakkan tere ji nag da ciy tere rey bakkanub doomu aadama ak bakkanub leneen lu dul doomu aadama itam muy jur gi ak rab yi rey ko te tegewut ci yoon tegewut ci dëkk bu dee doomu aadama nag rey ko rey ko tam tege ci dëgg ñetti sabab rek ñoo ko mën a waral ñetti sabab rek kay waral ñu mën a rey doomu aadama te rey ga tege ci dëgg yonente bi wa sallam moo ko wax moo ne ab jullit deretam du dagana tuur ci lu dul ñett sabab yi waral ko lan na ci ñett sabab yi benn bi mooy ko sangewu ba noppi njaaloo mooy ku masa dem kër wala masa am kër samp ba noppi njaaloo kooka lañ mën a àtte àtte bi rey walla ku rey nit te ay bokkam ne nañ ko rey bokki kañu rey ne ñoom nañu rey ki rey seen bokk kooku itam mën nañ ko atte rey ko ñetteel bi mooy ku génn ci lislaam tam ànd ak ñedul ay julit kooku itam manes na ko atte atte rey ñett yooyu rek la wax ne ci lañ mën a reyee nit te rey ga doon du tege ci yoon lu génn loolu rek ku ci rey nit rey gu tegewul ci yoon la te mooy yàlla di tere ñaareelu sabab bii te mooy ku rey bakkan tax ñu mën koo rey ci la ñuy dugalaale itam kuy aar boppam ba rey ko ku bëggoon a lor ku bëggoon a rey nit moom muy aar boppam ba rey ko ku bëggoon a rey foofu lay dugg kon mooy loola moom ci yoon la tege ku rey nit nag te tegu ko ci yoon muy benn ci sabab yi waralu ko li mu yeyoo ci mbugal mooy mere mu ko yàlla di mere yàlla dana ko mere dana ko rëbbu dana ko nege itam am mbugal mu metti rëbb nag mooy sooleel ko yërmandeem kon yàlla da koy sooleel yërmandeem te da koy sooleel yërmandeem mere ko di ko nege itam mbugal mu rëy loolu yàlla wax kon rey bakkan aadama noonu la noonu waaye rey beneen bakkan bu dul aadama itam moom it lu rëy la lu ñu tere la bari na rek ngir xam ne loolu nu fàttali li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne am na jigéen joj la ko tàbbal sawara mooy am muus mu mu tëjoon am muus mu tëj ko ba muus ma faatu joxu ko mu lekk joxu ko mu naan bàyyi ko itam mu utal boppam lu mu lekk wala lu mu naan ba mu faatu mu ne yàlla ci la ko dugale sawara moom jigéen jooju safaan bi nag te mooy kon sàmm bakkan moom itam safaanu jële fi bakkan la rek yàlla dafa wax na ci alxuraan ku sàmm benn bakkan rek mel na ne sàmm na bakkani nit ñépp yonente bi itam xamal nu ne am na jenn waay jot la ko yàlla jéggale tàbbale ko ci àjjana moom it mooy bakkan bopp ab xaj bu mu sàmmoon bakkanam xaj bu mara mara mar mu gis ko xam ne mar na ba mar yu àgg dayo mu defi pexe ba jox ko mu naan te la ko yàlla jéggale te la ko yàlla tàbbale àjjana kon sàmm bakkan bu dee sax du bakkan doomu adama yàlla da ci tàbbal nit àjjana sàkkantumaane bu doon bakkan doomu aadama te ku sàmm benn bakkan rek mën na sam sàmm na bakkani doomu aadama yek noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu yiw àddina ko àllaaxira sàmmal nu sunu ngëm musal nu ci sawara nga nu fa nu gudd ak wér defal nu jàppale ci suñu biir yëpp nangul suñu jëf fi baax yek